comme ni leen koy toppalee lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi ni leen ko toppal waaye rawatina jëmm ji nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool kenn dootu ko présenté ci làmb muy kan booy Seye 2 le vainqueur de le vainqueur de ki nga xam ne moom moo di Anaconda bu parcelle nga gis sortie bi nga xam ne moom la mujjee def def ko combat bu doy waar muy sorti boo xam ne sorti bu am solo tamit ba ba léegi kenn dégg ko kenn gisu ko moo am tamit loo xam te ni sison bi tëj na fan la Boy Seye 2 toll ci wàllu entraînement yi fan la toll ci leneen ak leneen ak leneen ci hivernage yeeg am tamit loo xam te ni actualité la di lëmbe làmbu loolu lépp ci ñëw waxtaan ci ak moom ah yooyu dañ ci waxtaan ak moom muy Boy Seye bu Kër ma ah Boy Seye ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw ginnaaw baatu onze billahi mina sheytaani rajim magan maa maa lay nuyu. di la fay di santaat yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant suma ñaari waajur di sant bu baax a baax suma sëriñ sëriñ Xalil Mbacke caatu borom daaru di ñaan suñ borom saxal ko fi di nuyu waa daaru musi bu baax a baax di leen masawu bu baax nag rawatina jeunesse bi rawatina sama waa koñ ci tiis bu metti bi ñu jógee ci màggal gi muy suñu xarit di suñu rakk di suñu dëkkandoo di suñu lépp muy Basiru Jongo maa ngi koy jaale suma xarit yi may àndal daaru musi yëpp di ko jaale waa Tamba di ko jaale suma mag mbës ñu gën ko xam si xaadim jong di ko jaale Kara jong Seex jong xam nga di ko jaale waa daaru musi yëpp ku nekk mën nga ko jaale sa bopp vraiment parce que dafa nekkoon suñu waay quoi makan jóge fi jóge làqu làqu bu mettee métti nag wax dëgg fa neex yàlla di ko jaale Ousmane Sow di ko ñaanal suñu borom jéggal ko ay bakaaram xaare ko àjjana di nuy sa bokkal li nuyu fi ma fekk nii nag muy Babacar affaire de grand nekk fii nii Kër Massar en face pharmacie 24 heures diggante pharmacie 24 heures ak G3S bi gis nga lu muy jaay wax dëgg fa neex yàlla qualité lay jaay lu baax lay jaay lu rafet lay jaay ba pare yéwén ci li muy jaay tamit voilà Babacar affaire de grand ndaanaan yi si Sénégal yëpp moo leen di sañsal ku bëgg lu baax da ngay ñëw fii Kër Massar. laajte affaire de grand. Mhm. yomb na. li lay njëkk a laaj mooy ana sa rakk ba galas ba léegi feeñagul wax dëgg yàlla. Mhm. ma ngi koy ñaanal suñu borom nit ko. Mhm. waa di si mosaw bu baax sumay suma yaay. waaw moo topp si man ñoo bokk ndey ak baay. dara jotu ko da doon jaayante rek di dem si gaal yi. pour góorgóorlu ji pour tekki teral waajuram. waaw parce que dafa judd dafa judd mu metti mu màgg mu metti mu dem di ko jaayante ji comme ñëppam ñëpp. ba loolu fekk ko si xamuñ si lu mu nekk waaye ñu ngi koy ñaanal bu dee suñ borom defal ko jàmm daal bañ gisaat ko daal parce que wax dëgg yàlla loolu bokk na si li ñu gën kii si si année bi daal waaw li ñu gën a jàpp si année bi ñu bi ñu génn ak li ñu nekk nii quoi. ko blessure bi bi rek mais ngay préparer combat xam nga magan dese rek dafa dese dese metti na mais da koy miis mais tey nga am frère bi nga xam ne yéen bokk ndey ak baay bi ngeen juddoo nekk ay xale yu ndaw seen papa teeral làqu boobu man maay am ñeenti at moom mu nekk xale bu ndaw di nàmp sama yaay jóge bi ñëw senegal kër papaam boot ñu muy metti gisuñu kenn nag. mu metti ñu dund lu metti lu metti gis nga lu metti lu nit di expliquer naan da koo dund mën bu mu juddoo ba léegi loolu laay dund waxuma la maanaam génn naa ci de ba nii may waxee yow ba jusqu'au présent ba léegi ak suma famille ak suma yaay man du ma jàmbat nag quoi du ma jàmbat parce que man bëgguma ku ma yërëm maanaam si metti rek juddu fekk mu metti fekkoo sa papa sa yaay yor la mu metti gisoo kenn gisoo du du du benn nijaay lañu amoon bi nga xam ne moo ñu doon teete te te néew gi doole la woon mais wax dëgg yàlla jaayante nañu ba li gën a baax si xale muy jàng alxuraan mu defloo ñu ko ak yar ñu ak yar ñu muy suma nijaay Ousmane Jong ak suma nijaay Abdou Jong maa ngi leen di nuyu amuñu lu ne gaañi mais yar nañ ñu quoi bañ bañ nekk ay ay ay jullit doon ay murit taalib Serigne Touba mu jàngloo ñu alxuraan tamit te defe naa ne xale moom boo ko defloo loolu su màggee li ci des moom moo ko war a jaayante mm-hmm. lu metti nag yàgg na si àdduna ko waa sama raxa boobu mettit boobu noonu si kër gi moom moo waral mu jaayante mm-hmm. doon jël gaal yi mm-hmm. barke sëñ Baba moo njëkk a tabaxal sama yaay ñaari néeg boobu mi ngi nekk xale bu ndaw takk jabar dugal si biir boobu mënul dara affaire yi di gën metti mu wàccee ma lu bari ndax làmb ji terewul seetaanu ma ko tamit quoi ba bis jot muy jaayante dem gis nga li li ñu si waaw tàggu na ma bi muy départ la ma tàggu bi muy départ bi may tàgg boobu mi ngi mi ngi dem ma koy tere mu coupé dem ba yàlla def lii nii quoi yàlla nag moo mën xamuñu mi ngi dund xamuñu mi ngi dundul ñu ngi ñaan yàlla daal suñu borom def ko mu dellu si waat si jàmm voilà. problème mu famille la. juddu fekk mu metti xam nga ñu nekkoon ci daara ji di jàng ku xam daara xam ne nit bu ci nekkee day fooy bëre. ba pare ma nekk jàmbaar tamit nekku ma daaru Moussi fa ma dëkk daaray Salkan nijaayu Boy Sey wàcce wu ma mais lu nit di xam ci jàng xam dem naa ko bañ dem naa bañ jox ma sax mbaar ci biir daara ji ñoo xam ne man maa leen doon jàngal yàgg naa fa mënu ma la ko wax yàgg naa fa Salkan waaw. Hmm? waaw nijaayam Salkan hmm. fan yi paase rek Boy Sey demoon na fa ba jox ma ko téléphone. waaw ma nekkoon ci daara ji nekkoon jàmbaar nekkoon ko nekk am fit nag judduwaale ko yaru ko màggee ko nekk borom jom tamit musuma xàddi musuma def lu ñaaw ngir am te duma ko mës a def ba àdduna di tukki dara jaraluma ko sax dara àdduna jaraluma def lu ñaaw ngir am lu nit di def pour am man am naa fit boobu pour def ko pour am mais man dara àdduna jaralu ma lu ñaaw duma ko mës a def. bi nga jógee mbuur lañ dañ ma njëkk a yóbbu benn dëkk. bu ñu wax tool samay mag ñoo fa nekk maa ngi nuyuwaale sama benn mag si la di nuyu soxnaam Ami Seye ak moom jong moo ma moo ma yor tool tàggat ma doon ma doon ma yar boobu xawoon naa léej biir daaru musi di déconné di nekk si ay affaire suma yaay jël ma jox ma ko mu tàggat ma bi ma demee ba mën a mën a la tuñ ma dara ma ma ñibbisi sama yaay jëlaat ma yóbbuwaat ma mbuur ci sama benn xaritu papa maa ngi koy nuyuwaale waa Paa Yoro Ndiaye mu yóbbu ma may def soudeur qualifié ci soudeur man ci lépp lu si nit di man ah, bien sûr am si ay diplôme boo ma demoon xëy suba ma defar lu lépp ci soudeur comprendre nga après nag may dem kër ga di fekk kër gi di metti mhm. ma ne sama yaay man métier bi mënatuma ko eggale quoi parce que yenn yi mënatuma ko seetaan baal ma dem di xëy di outil ji loo xam ne même bu dee mille francs dinaa la ko jox mhm. sama benn mag bu ñuy wax mbës sama doomu nijaay la moo nekkoon fii. di fi liggéey di ñëw mbuur di fa jaay si ma koy gis muy yor benn somu xaalis mhm. boobu xaw na bari si man ma ne ko damay dem Dakar si yow mhm. parce que bëgg naa di am di jox sama yaay quoi après si la ma indi fii nag may jaayante fii. Mhm. bi kon jaay nga doon dama doon liggéey ay fourneau laa doon defar ay masuwaar affaire yooyu noonu. di jaay di ko yóbbante. événement jotee ñu dem man ak moom benn instant ma rek làmb ji moom mu doon foyee làmb nag ma koy topp ba mu yàgg may bari ay mbapat fii. ba suñ borom def xam nga ñu ñëw si arène bi quoi di ko gérer. Boy Seye 2 bi li ko indi mooy Boy Seye jamono jooju noonu moom lañ njëkkoon xam si benn mbër buy bëri arène mu jóge Pikine ñëw Kër Masaar après ñu fekk ñun ñu ngi woon si benn écurie bu ndaw bu nekkoon fii bu ñuy wax dox sa kaw man ak ñoom Zeking ñoom Waalo genre après sama papa Alpha jël ñu yóbbu ñu si Boy Seye ma tudd fa ma tudd ma ñu ma yox Boy Seye après bi Boy Seye jógee ci Aldo nag di dem jaxaay man ñu bari dañoo toog resté ci écurie bi mooy écurie Kër Massar mbooloo mais man dama ànd ak moom dem. waaw ah, parce que parce que boobu man moom laa xam ko en fait moom laa xam voilà ay ñoom ay ñoom wuteng ay ñoom bulon naanu gaa yëpp ngi fi woon waaw mais man dama dem ànd ak moom bi ñu demee ñu ñëw préparé combat ak Sa Thiès yàlla may ko si defet ñu préparé waat moog Modou Anta même chose ñu ñëwaat moog Siteu yàlla mooy ko si ndam après si la ma si la ma dugal arène ah Diène yàlla mooy ko si ndam ak kii nii tijaan Faye mhm. waaye yooyu yëpp ñoo ko ànd. Mhm. Mhm. ah su ma mag la suma grand la làmb la ñu bokkoon nekk si làmb ji muy bay waaram may bay sama waar waaw loolu la rek waaw ah, mais non jàmm rek jàmm parce que jàmm moom ci la non noonu amuñu benn problème donte ko du ñuy déggante nag mais waaw ñu ngi si jàmmoo moom ah, jot moo amul rek dëgg yàlla mu ngeeg sama numéro maa ngi ak numéro am ñuy gisante ay statut yëpp jot rek jot amul saa yu ñëwee vacances damay dem këram nuyu ji ko ba ci yoonam bu mujj bii nii waaw mais xam nga jot rek maanaam man mun naa yor sa numéro ñuy gisante chaque jour et duñ déggante loolu moom ça n'a rien ak ak problème quoi. nga boobu après nga commencé nekk ci bay suma waar bay suma waar ñëw tegale ay victoire yu bari bëri dóor waaw ndigal maa ko a jox defet xumbal même chose ay Boy Thiam Mor Pikine Sanguinaire xam nga fis Faalaay Balde Junior ay baratin dama tegale ay victoire ay Boy Thiam daan ay champion boobu làmbu boo ja man jàmbaar laa ko waa waaye ma def samay non non te dama ko tegale man dama ko tegale tegale tegale tegale tegale tegale waaw. lan moo li ko sooxe du lenn maanaam da dëkk ci gox boo xamante ni bii du goxu làmb muy Kër Massar maanaam léegi sax jeunesse jeunes yi ñu ngi koy commencé di comprendre mais période boobu comprendre duñ ko woon mais bu doon dañ ko comprendre man heure bi doo ma tudd di tudd booy yi nii da mooy may tudd di tudd ay ñoom am ay ñoom booy ña même sama âge ak sama leb bu ma ko mayul samay victoire mayoon na ma ko man victoire yi ma tegale bu ma nekkoon ay dëkk bu mel ne ay Pikine Eh, wala ay géejawaay kon heure bi damay waaw mais yàlla suñ borom lu mu namm kenn mënu si dara ku nekk ak sa wërsëg. booy si làmb di dox làmb di dox Kër Massar nekk gox ni léegi bari na ay mbër ngeen ak def Kër Massar surtout tamit sa diggante ak saa bokkal. du question de mbooloo question de ñëw dañu dañu dañu dañu bokk benn gaale bokk benn koñ di dundandoo làmb. du question waaw. mais ñun waaw man ak moom sax ay ay ay problème si ay làmb du ñu mos a boole parce que dañu jàppante wut ci ay làmb xam nga li ma la mbër yu bari ñuy dëkk dañuy dañuy dañuy ànd àndu làmb ay soxorante ñun dañoo àndul ci yooyu noonu ay làmb yi nii non non. dugaluñ sax suñu suñu suñu ànd sax dañ si dugalu yooyu dañ si waxtaan di ànd entraînement di bokk di ku nekk di yéene sa morom ku si toog sa morom amul combat sax yow day mel ne yow waaw de non non wuñ sama waay la dañuy dund lu nekk dañ koy dund man ak moom sama waay la mën naa ne la Kër Massar moom rek moo fi nekk sama waay si làmb ndax waay si làmb dafa garaaw xam boo naan diw sama waay la si làmb waaw exactement waaye voilà moom rek loolu nag dañ ko dund dañ ko dund dañ ko dund rek tam nekk dëgg nag waaw xam nga bëñ ak làmmi ñoo dëkk te duñ réeroo mais ñun ñu ngi koy gérer waaw te loolu rek moom solo ànd gor rek lu waaye sa morom am nga yéene ko ko nee naa la problème sax duñ ko am ci waa bu ñuy am problème sax duñ ko am ci lu ci làmb parce que ñun ànd ñu ci ay ànd làmb boo yu bëri ngay gégg ñu bokk gox ba pare di am ay problème parce que làmb dañu ku nekk da ngay soxore sa morom mm-hmm. wala ku nekk lu sa moroom am doo ko yéene mm-hmm. ñun dañoo teel a comprendre ne lu am lu waay am yàlla moo ko jox lu mm-hmm. waay ñàkk yàlla moo ko xañ ñun biñ comprendre loolu sonn ñu voilà moo tax man du ma fréquenter sax ay mbër Kër Massar comme ni gars yi di dund ay cent pour cent ay affaires yooyu noonu man dama yéene ñëpp jàmm mais su ma xamee ne yow mi yéene woo ma jàmm sama ànd ak yow du sori waaw parce que man bëgguma ku ma yàqal makat man du ma jóg di yàqal ku yàlla bind bu ma xamee na nag yow jikko boobu nga yor dama lay moytu mm-hmm. dama lay moytu dama lay daw ni ñuy dawee taal mm-hmm. waaw mm-hmm. dama lay daw ni ñuy dawee taal. ñu ñu gisaat tamit nga nekk ci làmb saison bi tëj bi saison bi tëjeeg léegi ñu ngi dégg ay vidéo yoo xam te ni ñu ngi gis code su baakari ku ci mel ni code su baakari ku ci mel ni ah. Adamo am benn tuumaal bu ñu tuumaal làmb am benn der bu ñuy yàq ci làmb ci ay vidéo lomotif en tant que nga dégg loolu ah, te ñu ci tuumaal façon mbër bu ne. mooy ki nga xam mooy ki nga xaritool mooy keneen ak keneen li tuumal ay mbër yu bëree waaw man moom man moom man moom lenn rek moom ma si metti waa maanaam coach su Bakary na ko quoi mhm. aussi tamit sénégalais la xam nga maanaam sénégalais yi dañuy war di communiquer ak moom di waxtaan ak moom parce que xamu nit koo xamante ne bii maanaam su su ko lu ko neex lay wax placé na pour wax lu ko neex mhm. maanaam bu la nit ñi di xabtal wala ñu lay merloo ba ngay wax yenn yoo bëggul wax mhm. comprendre nga et yàq gor baaxul parce que nit maanaam di ko dina di dund fekk rey nga ko ba mu dee comprendre nga mooy Sénégal boo amul mental bu fort pour nga dund fi sax day jafe isaamu la làmb benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais boo boo boo xare boo boo toppoon kaa bi ba ci biir nitu làmb yi ñu ci bëggoon a yàq ay nitu làmb ñooy ñoo ñoo leen ñoo leen naroon yàq. ñoo leen di boole yàq. nitul làmb yi ñu bëggoon a yàq si problème bi. Mm-hmm. ay nitu làmb ñoo leen ñoo leen naroon yàq. Mm-hmm. vidéo yi am na ay nitu làmb yoo xam ne dañuy ñaan yàlla pour mu fuite. Mm-hmm. dañuy ñaan yàlla pour mu fuite ay nitu làmb yoo xam ne dañuy ñaan yàlla pour vidéo yi fuite lépp si làmb la. comprendre nga. Mm-hmm. moo tax bëggante bi bu amoon rek lépp ko mais ñii di xeexante fii mbër yi di xeexante fii promoteurs yi di xeexante fii journalistes yi di xeexante fii ku si nekk di bëgg sa ay bu morom. Mm-hmm. te te ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi ñoo bokk métier mi bu yàqoo ñëpp la yàqool loolu pour lan ban sens la am. vie privée jàmbur bi yoonu kenn nekku ci bu kenn dugg ci vie privée jàmbur ku si nekk placé nga pour def lu la neex. Mm-hmm. ay ah, su yoon nekkul su yoon nekkul si. boo déggee ñuy tuumaal mbëri ndax yëpp la ñuy wax ñu man moom ay lo motif man su ma neexee sax bokk si man maa maa moom sama bopp bu ma neexee ma bokk si ay lo motif mais concerné wul ku yàlla bind. nit ñi dañuy dugg seen problème noonu lañ def di ngawtu ngawtee doomu jàmbur bi muy pël bu rafet pël bu rafet lu mu liggéey si làmb. Ah nekk jigéen jaayante ci làmb. ni nit ku baax. Mhm. li liggéeyal promoteur yëpp liggéey bu rafet. Mhm. nekk seen mbokk journaliste nga xam ne journaliste boo laalee kii laal nga kële comprendre nga mhm. ñu ko siy tudd si ay détails yoo xamante ne bi si koo xamante ne bi fulaak fayda ak jom la ko man loolu laa mun a seede si moom te man man boog bokk naa si ñu ko gën a jege fréquenté ko te man fulaak fayda rarement sax la téléphone am yu ngeen toogee ku ko woo mais libre lay wuyoo téléphone am man la ma ko fréquenté dañu xamante bu baax bu ngeen toogoon yéen ñaar ku ko mënti woo mais libre lay wuyoo téléphone am loolu ku wóoluwul sa bopp doo ko def téléphone am defu si code man xam naa kotu télé ñaari téléphone yëpp damay téye téléphone di ci seetaan TikTok mhm. mu dem nekk si leneen man ma téye téléphone am mhm. man waxuma ko nag pour ay pour nit ñi déglu pour ñu yaakaar ne na may jëlal paar pël wala dama koy waxal lu rafet barki Seydina Muhammad li may wax ni billaahi wal kitaabi dëgg la loolu lañ dund man ak moom mhm. comprendre nga. xamaluma ko lu ñaaw kon bu ñuy wax si moom lu ñaaw man daf may daf may jaaxal quoi parce que man ak nu ma ko jegee te xaw ma ko te nëbbante wuñ dara jaaxal na ma. comprendre di yàq man ñi ma si dégg bari nañ dégg naa si ñu tudd si ay promoteur mhm. ay promoteurs yoo xam ne dañoo liggéeyal Sénégal dañoo liggéeyal Sénégal laa la wax mhm. dañoo liggéeyal Sénégal tey ku mel ni Abdou Aziz Ndiaye mhm. ñaata yoon lañ ko fi bëggoon yàq ñaata yoon Abdou Aziz Ndiaye bu laxoom génnoon ci Sénégal rek Sénégal waxuma la ci làmb de Sénégal da koy yëg ñaata doomu Sénégal ñaata doomu Sénégal ñooy liggéey ci ci Sador ñaata doomu Sénégal ñooy liggéey ci. ci alburaax ñaata doomu Sénégal ñooy liggéey ci làmb muy sponsorisé waat làmb di jàppale waat promoteurs yi. ci làmb am na mu yokkaat mais daa mus wàññi làmb bay yokk làmb. ci mhm. defar làmb la la dëkk. comprendre nga kon gars yi nañ rafetal. Mhm. di waxaat si benn kaaw muy kaaw la kaaw bébé Elton ak ak beneen booy boobu noonu. nga xamante ne bi dañuy muy 5 tonnes. Mhm. ay sénégalais lañ. ay ay ay nit lañ ñu judd ci famille bu baax. kon nañ buñ buñ buñ buñ buñ buñ déglu nit ñi nga xamante dañ leen di bousculer ci ci wax lu bon ak def lu bon nañ jéem a def seen bopp ay gentleman comprendre nga tey ku mel ne tey ku mel ne bébé Elton dafa dem wéeru ji ci Modou ak waa jàmbaar nit nag boo wéeroo si moom da ngay xool ni muy doxee nga doxee ko boo bëggee gis mag mu yaru da ngay dem nga seeti maam père ba papay Mansour boo bëggee gis mag mu yaru yar doomam ci ay teggin mhm. ba boo gisee gis jeune bu yaru nekk si làmb da ngay dem seeti ji Mansour mhm. Papa wax ji bariwul jëf ji bari na te lépp lu rafet la ah. diiraa mu nekkee ci làmb di ah, bëre ba léegi mosoo ko dégg mu ñaaw mhm. góor a soog ainsi de suite ainsi de suite nga ñëw si Modou Lo si raqam yi muy àndal ci làmb di leen tàggat ñëpp a yaru ñëpp a kilin à commençant ci Petit Lo mosoo ko gis mu désordre wala mu ay mbàkke fay boo leen gisee dañuy sañse lu rafet toppatoo seen bopp wat seen i barbe ba mu nice ñëw sañse lu rafet ñëw boo leen dëkkee micro laaj leen ci Modou Lo ak adversaire u Modou Lo sax duñ ci wax lu négatif lu rafet lañ ciy wax nga ñëw ci ay Franc ay Gora Sock ay ay Bas Garga 2 kon donc moom na xam ne si ñuy dem wéeru ji duñ wax lu ñaaw duñ def lu ñaaw kon moom bu waxee lu ñaaw wala mu def lu ñaaw bu pare di leen tudd ay waxi boppam la mais ñoo ñu ñooñu waxloowuñ ko ko na làmb xam loolu avant tout donc comprendre beneen booy bi tamit Balla kilifa la Balla Gaye kilifa la benn mbër gox boo dem da ngay dem ci écurie sax ay adversaire am ay concurrence am ay boo yu nekk seen écurie nga laaj leen kan moo dàq bëri si làmb ñu ne la Balla Gaye nga ne kan mooy seen idole ñu ne la Balla Gaye loolu yàlla Balla Gaye rek la ko may ñaata mbër ko fi wax yoo xam ne ay ad Balla Gaye ay adversaire am ñoo nekk si écurie ñooñu kon yow kooku boo ko bëggee yàq yow yaay sonn rek bëgg buzz wala bëgg xaalis wala bëgg tur bu mu la jaral di wax lu ñaaw. ma xam sa su ma neexoon ma ciy wax lu ñaaw lu nekk. nañ yaru Sénégal bu ñu bëggee mu avancer il fallait que nit ñi di waxante dëgg waa magat maa gën a yàqu ci àdduna man nee naa la man yàqu bu ba ma ma ba comprendre ni day yaru pour am li mu bëgg man ñàq a tegu si yoon sax moo ma tardel man booy li ñuy def nii nii man maa lañ ko dàq foofu gën lañ ko mën. yi ñuy forcé man yenn saa yi ma gis si làmb ji sax benn booy buy forcé bandi ñoo naan booy bi bandi la dafa bëri coow nag ay ree la may def damay xam ne tapet buy forcé bandi la du du bandiwul xamul luy bandi. ah booy ci ba làmb yoon ci loxoom ci làmb yoon yoon ak làmb ñu si bari mën naa leen metre en respect indi leen sama kër tëj leen foofu noonu. barki Seydina Mouhamed li ma sañ sañuñu ko. lu ma ñeme ñeme ñu ko mais da ngay lem bam ron da xam ne yar ak teggin lu mu la mayul du la ko xañ lamb du affaire de bandi quoi lamb affaire de noble la comprendre nga mais magan ñun ay noble lañ waaye yow affaire de grand rek hmm? affaire de grand rek babs affaire de grand Babacar mu kay na mu kay la moom tamit élément Babacar la nekk booyam nekk fii la ñuy ñun fii la ñuy fréquenté fii la toog fii la ñuy waxtaanee moom di def lekk moom lépp mu nekk suñu waay mhm. baax si ñun comprendre nga mhm. ñu ngi koy nuyu mbër affaire noobul la. ñu ñëwaat ci adversaire de Boy Seydoux ndax da nga daan Anaconda coow li bari trop ñu gis Anaconda adversaire bi nga xam ne moom nga daan bëri loo ko bëri tey moom mu dem jëli ki ba léegi nga toog mënoo am combat lan loolu mooy waral ne la maanaam làmb ji bëgguñu lu metti te Anaconda sax dama koy sant di ko gërëm balaa may am am Anaconda yi sax xam nga ne comme nii la woon adversaire bu nekk doxal nañ ma ko mën gisuma benn adversaire bu dañuy ragal sa taxaw sax dévier Boy Seye jox ma Boy Seye parce que xam nañ ne bruit bi nekk si Boy Seye ak dof bi nekk si Boy Seye ak ni may làmbe maanaam pour nga daan ma du yomb moo tax booy duñ sax sawar ci nañ ma jox Boy Seye promoteur yaa ngi may woo man bi ma bëre bi ma bëree ba ci suba si la ma waa alburax buggoon jox avance pour ma bëree si combat baa Balla ak ak kii bi parce que adversaire bi ñu ma posé woon peut-être ak boobu noonu maa ngi doog a bëre nekkoon si blessure waroon dem faju mun mu Baye Ndiaye Baye Ndiaye bi ma woowee tak bi ma Matar wooyee ne ma ndax ma jël avance Weuz Diambar. moom la sama xel daf ci nekkoon sa yàgg Weuz Diambar da ngeen a bokk. Matar ma woon ma ndax ma jël avance Weuz jàmbaar comme man musuma yàq làmb te du ma yàq làmb jàmbur xaalis du tax ma jël avance boo xamante ne bi leer na ma ne date boobu day fekk ma nekk samay traitement di faju ma ne ko damay faju loolu moo yàq làmb jooju. waaw. Ah, après nag bi ma wéree fekk na ko mu am komba mais mais mais waaw non boo yooyu moom non mm, style rek mais eh. nuroowuñ ci dara de ci wàllu làmb si biir géew nuroowuñ si dara comme am na combat comme am na combat bëgguma développer si moom maa ngi koy ñaanal combat am yàlla suñu borom defal ko jàmm defal ko bébé saalum di ñaanal bébé saalum dam parce que gën a jege gëj a yey su ma waaye la maa ngi koy ñaanal yàlla mooy ko ndam mhm. voilà gars amul combat Gora amul combat yaa ngi may dégg ah waaw mais mais mais yow man dama ko warul tëkku sax parce que rawu ma mais gars yi dañ lay woon naan la ay double double moteur bañu ma bëreeg moom mais damaa xam ne bu ñu ko seetoon ne ko Boy Seye moom bi mu dem bi demee gars yi demee ba comprendre double moteur benn kele la yor nangootul bëri ay combat yu metti seetlu li ba la ah, na dem jëri ji ay ñoom yaaw jaal daa ci tolof yow kon mu la avance duubul pare nga. ma delloowaat bu ci boy boy bi rek dama koy tegal sama tànk bi mu plaqué ba sonn du si mën dara ma daan ko benn bëre la am muy plaqué munu ma daan. mais góor góor maa góor a sook adversaire de taille làmb bu metti mën a waaw. keroog moo indi ko ma du ma ko daan ko. parcelle Kër Massar. waaw jour boobu ñoom kenn reeru ci na ñëw ñu bëre. waaw bare na pare na waaw alburax ñi ngay wutal combat géejawaay am na ñu fa nekk amuñu combat man bàyyi ma fa kenn waaw. waaw man ak moom mosoon nañ ko taxawal. mais est-ce que ay saa yi ñemeeti na ma. ah est-ce que ñeme na ma. waaw ah, man dama naqaree bëreel. <laughs> la boo booyee dama leen mën aller retour nag du ma la nëbb de barki Serigne mbamb dama leen dama leen a mën dama leen a mën ale mën leen retour ndaxte man su ma leen jàppee damay bëre te su ma bëggul ñu bëre duñu bëre ñoom suñ ma jàppee damay bëre te ñoom duñ mën a bëre damay bëre tànk di bëree loxo noo gàkku day xaar gàkku day dalay dalay daan ci sa action mais du mbër moo xamante ne bi day defi action pour daan la man ay borom bopp ñoo ma yor su mel ne sama papa King maa ngi koy nuyu nuyuwaale ak sama papa Baara ñoo may tàggat waaw ah, ñooñu mooy lool waa di nuyuwaat ñëpp rek di nuyu suma ñaari xarit yi nga xamante ne bi ay takk der lañ muy Kabaro nekk roso di suma waaye di nuyu gaayam nekk ndoloon foofu yëpp di nuyu. Euh, doomu ndeyam baay mbay Baye mbay di xaritam di doomu ndeyam foo gisee baay mbay gis Kabro foo gisee Kabro gis baay mbay maa leen di nuyu dañ may jàppale si lu bari. comprendre nga waaw noo affaire de grand wax ci moom duñ si taay duñ si sonn waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Ndiaye waaw grand Ndiaye nekk nekk nekk terminus manise waaw maa ngi koy nuyu bu baax suma waay suma lépp ma sëqatee rek mu ne gongo. lu ma soxla mu defal ma ko di ma conseil si làmb di ma jàppale maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ay soxnaam comprendre nga di nuyu Bilal Diatta meeru Kër masaar di wax Kër masaar ñëpp ñu ngi si ginnaawam ci liggéey bi fi mu bëgg a yóbbu Kër Massar fi mu bëgg a yóbbu Sénégal dakaar sax laay wax parce que moom dépassé na sax Kër Massar mi ngi ci teg bët meeru meeru meeru Dakar beeg yëpp kon xam ay ñoom Barthélémy Dias di wax Matar Ndiaye affaire yi nag gaaw tamit quoi di nuyu école de lutte Boy Seye bi yëpp di féliciter mbër yi fa am combat am ndam di di leen di encourager ñi fa am defet ñi fa amul combat ren tamit ñu leen di ñaal ñu teel a am komba waaw ah, di nuyu nag vite fait sama waay ak soq soq de jaxaay maa leen di nuyu bu baax a baax a baax waaw ah, di wax daal affaire yi gaañ day daw rek amul arrêt waaw.